mbokk yi ñuy seetaan ci jàmbaar news mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne gis ngeen kanam gi yàgg ngeen ko gis muy El Hadj bu parcelle waaye léegi nag daa mel ne El Hadj Diouf bu Mansour Bala donc ba El Hadj moom xam nga <laughs> moom dóorkat la moom fu ne lay dóoree bu ngeen delloo ginnaaw tuuti diggante Modou Lo ak Ama Balde tiraillement bi amoon diggante ak Par Sarr El Hadj Diouf internet bi foo xool gis fa El Hadj tey nag. xale yi parcelles yi dañ doon bëre mais ndam ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn Talfa ñàkk Franc am ndam kii di ñang mbaalu am ndam ginnaaw loolu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi wax ko ginnaaw lan lan moo ko booleeg t-shirt bi diggante ak Mansour Ba yooyu yëpp dina ci waxtaan El Hadj bàyyi léegi. waaw asalaamaaleykum Sénégal ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di ci ji ku ne sa wàccuwaay di leen nuyu yoon waa Jambaar News di leen nuyu yow jiidi yaa sa caméraman euh, jili borom micro bi ma tudd la jinaxu micro yi parce que xam naa ne jeex jinax nga te da bëri pax te nee nañ jinax bu bëggee gudd fan il faut mu bëri pax te locataire bu ne ci UC looyu mosu te dëpp boor ci borom kër dafa rusloo kon jili te yaa ngi am El Hadj Diouf fii muy El Hadj Diouf bu Mansour Ba di El Hadj bu Modou Lo di El Hadj Diouf bu Parcelles Assainies waaw nee naa la drapeau bi maa ko yor non Ba li mu boole ak moom mooy loolu non bëri na su may toog di ko wax fi laay noor ba nawet fekkaan ma fi parce que nag Usain Usain Bolt loo ko bañ bañ bañ nangu ko ne mën na daw mën képp koo xam ne parcelle moo la ñor rek mën dama lay bëgg am na ju dëkk parcelle ñu naan leen ñor di sàkkatoo parcelle moo waral ma ne téer yëpp ay téer lañ waaye na yu bokkuñu

mais tey ak Mansour Ba lamb dafa dekki parcelle dañ ko wax nag te dee te Mansour nag yemul ci lamb rek Mansour day jàppale jigéenu parcelles yi 1 ba 26 mu tuddee leen les femmes des jàmbaar muy mouvement des jàmbaar du Sénégal comprendre ak jeunesse bi jeunes yi di leen jëndal ay moto di leen jàppale xam nga moo waral man El Hadj Mosol ti setu Mansour Ba. mu ngi nii Mansourba, Mansour l'homme social hein, qui aime les parcellois parce qu'avec avec lui les parcelles auront des ailes Moi, tax ma Mansour le futur maire des Parcelles Assainies oui parce que c'est l'exemple de son comportement qui assure et rassure en tant qu'un digne parcellois Il est ordonné et coordonné moo tax kooku parcelle da koo soxla tey parcelle bu amoon cinq Mansour Ba weesu tey mu ñëw ànd ak ay frère am ay Papa ay Modou Lo ñoom ñëpp tey gis nañ ñuy jàppale jeunesse su parcelle te loolu la ñuy xaar ci nga xam ne tu es un vrai tey mu tëgg bis bu rëy diggante Bombardier ak Franc ma jékki-jékki gis El Hadj Diouf ñëw dugg si sol t-shirt Mansour Ba jàmbaar du Sénégal ak la ca topp lépp. nan nga gise stade bi tay ma wax la benn affaire su ma la benn affaire dañ ko gëm xam naa nag gars yi sax du yomb a gëm mais ma wax la gisee arène nationale. billahi wallahi barki Cheikh naa Cheikh Ahmed Tidiane tey laa fa mos a dugg. barki yonenti yàlla Muhammad billahi wallahi wal kitaabi arène nationale bañ ko tabaxee mu doon arène national ba léegi man El Hadj Diouf tey laa fa mos a teg sama tànk. te Mansour ba moo ko waral parce que nag moom laa bëgg te Olof Ndiaye nee na lu fees ci biir feen ci biti te nit bu dee sa nit doo ko xebal bésam seriñam góomam toolam mun ko ma xebal sama bés sama sëriñ sama góom sama tool bu may lim saa yi noonu dama la ciy boole te Mansour nag daf moo jox cër nee naa la le 3 décembre passé bi ñuy lancé mouvement des jàmbaar ku ñëw nga fi mais Mansour man maa ko dugal. mu doon benn pacte bu mu marqué ci cër bu ma jox mu waral ma ne Sénégal partout ku am sa leneen na nga ko téye El Hadj Diouf El Hadj Diouf Bala du El Hadj keneen. mais El li nga wax dafa am nu ma ci jaaxal combat Modou yi ni mu bëree El Hadj Diouf combat bu nekk mu gar ci bakkanam def communication bu mucc ayib ba ñëpp naan El Hadj nga ne ma mosoo teg sa tànk arène nationale bu dul tey. déggoo ma sama yaay man kese la am ci doom amu mag amu ma rak maay di caat te paa bi mère bi lépp man lañ ko laajte fu ma dégg daaj mu nit kàddu laa lu ma la wax bindal billaahi wallaahi wal kitaabi amul combat Modou Lo bu mu bëree arène nationale man ma teew en tant que nag un vrai fan de Modou Lo te chaque combat Modou Lo mooy feeñ fépp loolu ku mu ko wax doo nee Mansour moom mu njëkk jox bielose combat Modou Lo Ama demuma yaa ngi dégg ak xaalis bu beuri combat Modou Boy mu defan noonu dewuma estat nee naa la arène nationale man El Hadj Diouf juddo ba léegi barki yonti yalla mohamoud ma fay sogu dugal sama tank muy tay le 1er mai 2024 c'est à cause de Mansour Ba le digne fils parcellois kooku bu wootee coow lu day bari mu waroon ko mu ne ko Mansour fu mu ne cëpp ñëpp xal am na solo parce que nag li may wax gars yi ne naa ko yaay téer ci biir parcelle yow damoo posé bi yàqoo wuñ bi xàmme nga kook ak saaj te dafa déggum daaj. xàmme na kook ak saaj. te dafa dégg daaj. te dégg daaj te si yaatu. di yaatu saaj bu ko amul du non mooy teeru promoteur yi déggu ma mooy promoteur yi mujjee fa la gën a yéeme bopp la ari jarul wax ci di bari micro ba lamb ba mburu ba ndekki ba bër ba kafe ba biscuit ba cere ak soow ba waaye bu ma lay limal fi laay noor ba fekk la fi waaye ah billaay wallaay Mansour rek ko wóor eh ñaana El Hadj Diouf allah moom laay àndal ba géej gi fer ànd ak moom ba fal ko mairie parcelle parce que nag parcelle dañoo soxla Mansour parce que day def am ñu fi nekk du ñu nax fii kenn def benn geste boo xam ne wane nga ne yow da nga bëgg parcelle en cent pour cent gars yi dañuy sàkkatoo parcelle di waxal parcelle di jëfal seen intérêt bopp bëri na fi parcelle bu may bu ma lay limal ay nit fi laay normal na fi parcelle fii kenn réactionné wu fii kenn réactionné wu fi TV xam nga ñun parcelle xam nañ ko quoi maîtriser nañ ko 1 ba 26 man fu ma jaadee ci ko ñu booy woo mu yuuxu ma eh Diouf Diouf Diouf man wax donc dalu parcelle la comprendre xam naa lépp lu fi daw moo ma leen booyee. Eh. koo joxe ñëpp dañ koo war a topp. dégg nga moo ma ne jeunesse Parcelles Assainies Mansour Ba mooy borom rang yu jub borom rang yu jubi kii jàppale jeunesse bi di xool nekkoo ci dara mu ñëw ne créer le projet boo amul permis mu wutal la permis boo amul tey mu jënd moto jox la ne la liggéey jëriñ sa bopp boo dee jigéen nag si la mun la am demal def lii dem jaayi ah boo dee mbër buy tëgg kom a jël la jàppale la xam ne sa yaay dalaa soxla donc si donc wankoor a jëriñ waaw mais bi tamit ñun loolu lañ soxla social moo lu ma ko lom social à tout temps à tout instant dama dégg Siteu benn bis mu ne day tabax kër yaay Fodé Mansour yëkkati teraanga gu bari defal ko ko combat Siteu yaakaar naa ne trois derniers combats yëpp Mansour moo ko tëgg te Siteu dëkkul parcelle te jàmm gën la dëkk kon loolu mun naa firnde lu bari. waa gis nga mooy li ma la wax rek. lu fees ci biir feeñ ci biti Mansour dafa ne mouvement de jàmbaar du Sénégal donte parcelle dëkk parcelle la ko ñor. waaye social am nag yamul parcelle kese moo waral man la dafa yaatu di yaatale moo waral ma la loolu moo waral man la Mansour Ba fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee fi la fekk baax ni waxal parcelle partout Mansour kese waaw waaw. combat Siteu Modou Lo El Hadj Diouf ban taxawaay la ca. non. chaque combat ni mu ci taxawee rek laay taxawee parce que dégg naa combat bi xam nga. tarkindaa yi dafal ndànk nag dafal ndànk néew naa leen dama ko xam. jàmm gën laax gën a xam Pikine parce que tey nag ak jagsaaw ak tendems hmm. ak café ak école Rahman hmm. man dama ko ñaay bu dëxën bi di tàng boobu Siteu juddoogul wala bu juddoo mu ngi yor ñaar dërëm di jënd ndànk kon ñoom nañ def ndànk Lac Diouf la ñuy waxal. Lac Diouf xam nga jàmm ko. déggoo moo de moo ne la lu ñu bax ma ngeer ko te xam naa ne ñoom bay la ñuy ndekkee moo war man géex daa fekk ma reer ci. mais nag ku ne xam na ni Siteu nee na Modou may na ay xale génn ci waaye combat bi lu ko ci dugal génn. non coow di jib affaire bi xam nga benn gulu la benn tos yéegal aju wàccee rek ñoom sib nañ doole moo leen waxee loolu xam nañ comment Modou Siteu Modou benn gulu la koy def benn tos yéegal aju wàccee wax bi jeex benn gulu benn tos yéegal aju wàccee. benn gulu benn tos yéegal te ah, waxal waxal luñ dégg. non ñoom xam nañ loolu ñoom ñu naan benn jooy. jooy day yàgg wala ñu def ko benn rongoñ toq la rek jooy day bëri. noo jooy dafa yàgg jooy non Modou nag benn rangoon la moo gën a gaaw benn jooy moo tax ñoom bu ñu benn jooy ma ne bu ñu woowee ci vitesse ñu woo leen ci lonsan te Modou bu ko neexee du trop gàtte ba sang Modou El Hadj Diouf rek ku fay Ama yee bi ku fay Boy Niang 2 ah, kon jeex na kon si tewuma waaye si si te si dëggoo ma de. Modou Lo Sénégal kan lo lamb ji lo téléphone sax buñ la woowee bo dekk senegal kan allo sapeur bu amul lo duñu fay lak sonos bi amul lo ki duñu togg bay taal te lo la bo dem ba gën la fay fekk lo mo do Serigne Touba na jala lo isa kama lo ban champion gëna a fi ci lamb ji ki jàpp ëmm wo ci digg xarnu bi si te la te koku te ko te lu leer la lay tegal ni na la cooki ndong la gëna mbok mbog la ñu nak moom rek ci ñu ko wo ci nga ko Modou kenn du ko tegal lu teng-teng kon dalay tong-tong koo koy xarañ billaay wallaay le lutteur qui lutte en contrôlant même la vitesse du vent d'où côté vient le vent. est-ce que am na la mën a toog. ko de si am fa ay Abdou Seck ainsi de suite gars yi mais États-Unis ah. mais man maa qui ñaan I'm here in Senegal, but I'm clever better than them. They don't know who is this boy. I'm sure what I'm telling you. Yeah? I never take a plan since I'm born into this world. But I know I'm a king. But I be myself. Yeah. Jamagan. Man ak ñoom. Non. di la sant di la gërëm. yow jëli borom micro bi. yow micro door laa la tuddee. jëlee jinax ak a bëri paax jëlee jinax ak a bëri paax mu ne ko locataire bu ne ci UC lay musul te dëpp bool ci borom kër dafa ruslu mu ne ko jinax sax bu bëggee gudd fan bëri paax noonu la demee kon jëli yaa mun yaa ëpp doole